mooy dafa mel ni euh, ñun ñi nga xam ne ñoo nekk Touba nekk ak responsable politique yu mag yi nga xam ne ñoom lañ teg ci bopp dëkk bi man gis naa ne ñoom war nañu xoolaat bu baax seenu toogin ak seenu doxalin parce que comme ni nga ko waxee sànq fi ñu jaaroon ba jot ci réew mi yombutoon kon fi ñuy jaaraat ba war cee jot moo war na gën a yomb ci ñoom fuuf parce que li Macky Sall réalisé ci dëkk bi ak feneen fu mu mën a doon ci senegal waroon na ko mën a yombalal bu baax ab liggéeyam parce que kenn ku ne xam na ni waxuma Touba képp mais Sénégal gépp laa wax foofu génn di nga teg sa bët ci loo xam ne Macky Sall defal na ko doomu Sénégal te boppam moo tax muy def waaye li responsabilité bi ñu ko dénk mu xam ko mu jël ci engagement ni dinaa ko def ku ne xam na ni lim ci man lépp mu ngi koy def moo membre de gouvernement bi ñu àndal mais dèjà nag Touba moom bii yoon ñuy dugg ci élection yi war nañu faye mag Sall beneen njukkal boo xam ni suñu àggee ci élection yi ba suuru lënd bi xelam dana dillu siwaat bu baax ci ni dèjà def na Touba waaye Touba fay nañ ko loolu nag la koy def caaxaan def ko dajoo di xuloo defu ko werante bi defu ko nañu jàppale ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci suuf ñoom ñi nekk ci kaw dañ leen jàppale ni ñu leen di jàppale mooy nit ki li nga nekk da nga ko ci woo te déglu ko ci mu xalaat ci nga xalaat ci ngeen génn kenn ku nekk dem ci terrain bi li Macky Sall bëgg ñu defal ko ko mais heureusement loolu amul Touba ñi nekk ci kaw nag laay wax ñëpp bàyyiwuma ci kenn nañ gën a jëlaat responsabilité bi ñu leen dénk parce que ndawut la toll ni Touba kuñ ci tànn ci ñoom ñooñu jiital leen xamal leen lii ngeen war a def ñu xam li ñu war a def te des des sax xam nañ ko parce que li tax xam nañ ko mooy yàgg nañ ci politique xam nañ politique xam nañ réalité politique ni muy demee dafa am ñoo xam ne ñu ngi ci banlieue bi ak ñeneen ñoo xam ne ñu ngi ànd ak leader yu mel ni ñoom Mame Saye di xeex guddi di xeex bëccëg dara taxul lu dul du intre personnel pas intre personnel parce que bu doon intérêt personnel la ku ne mën ngaa doxee neneen mais du loolu dañu gis ni lii def ko def te dañ ko war a delloo lii ana lan mooy tax ñu man ko mooy réunion yi ñu woote yëpp maa ngi ci dem mais benn réunion boo xam ne dem naa ci ñu présider réunion bi ba réunion bi jeex te falaxoo ak ngaayoo amu fi fekkuma ko fi loolu nag ñoom nañ ci xoolaat seen bopp bu baax nag te gëñ gën góor góorgóorlu kon li soxna si wax laay gën a dëggal foofu te gën a soññ nag membre yi bu baax a baax parce que nit du liggéeyu liggéeyam ba pare dénk la ko nga bëgg ko yàq kon dèjà war na yëg ni na bàyyiwaat xel wax ak ñi nga xam ne ñoom itam ñoo fi nekk pour ñu am beneen taxawaay boo xam ne nañ ko gën a taxaw nañ ko gën a taxaw toog di ci saal ak wax ak a def yëf réglé wut problème mu Touba problème mu Touba pour ñu réglé ko fokk ñu dem ci nit ñi te fokk ñu déglu leaders yi nga xam ne nag ñoom yëndal lu ñu fanaanaluñu te ñu ngi ci terrain yi guddi ñu ngi ci terrain yi bëccëg surtout ku mel ni Mame Say kon nañ ci bàyyi xel surtout ku mel ni Mame Say kon nañ ci bàyyi xel parce que man dañoo nekk dañoo nekk. tëlumaa tëdd cib lal te noonu lañ ñëpp mel ñi ànd ak moom tëdduñu cib lal yënduwuñ cib lal guddeeg bëccëg bala ngaa tëdd deux heures du matin wala nangam te pexem boppam ak njàmbaaram képp la koy defee ak de bëgg a delloo Macky Sall njukkal bi nga xam ne def na ko ci dëkk bi dèjà loolu nag ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo ne ci kaw nañ ko bàyyi xel ñoom ñi nga xam ne ñun ñoo ñu jiite fii ci Touba doon fi suñuy kilifa xeebuñu leen dañ leen di wax dëgg xëy bu ñu leen dañ leen di wax dëgg parce que nit munoo koo xam-xam fi mu bokk nga di ko xeeb dëgg lañ leen di wax nañu jëlaat ay responsabilité ci dëkk bi te bàyyi lii ñuy def bu ñu ko deful lu leen dal wala lu ñu gis nañ xam ni seen responsabilité bopp la wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala